madani alxaqul mubin ma lil bariyati yabin wa ma li xayri la yabin min busarin wa niamin أبدل الجود ولي سير الوجود إجابة من حميد ملك الذي باقي الحديد mën a xam naa balay booba sax am loo xam ne doon nañ ci waxtaan moom nii loo xam ne da ko fekke woon di ma ko leeralaat ndax xëy na kon na naa naka fi teew mu wax ne jataay bu ñu fekke woon ñu ngi ko xam ne saa su dana am dana am fu ko mën a jaarale bu ko amul suñu borom daal di koy sàkkal ci barab ak jataay dafa am bis am ay mag yu sëriñ xamul def ci seen xol ne bëgg a woon Cheikh Ibrahima mu ñuy jàppee. te sooy ci muñ naa ko ngir àgg fa. mais biñ dikkee wan da ñu ne ko ah, ah la boo nee ba yow mu la da ngeen laaj mu ma wax leen nee na ñu ne ko faal mu ñuy jàppee ne da ngay raxas sax par bam set wecc nga duy ci bëgg sëñ Bamba ba mu fees dell foo jublu jox yàlla yàlla nangu nee na ñooy mu ne leen ma laaj leen mayit yaa ayyuha sibyaanu astaqilu anil udaa bil umi staqilu fastaqilu bi issi wa tilaa wa tani bu ma jàll si saqaawa mu ngeen ko déggee dañu ne ko sëñ Bamba dafa wax ne yéen ndaw ñi bu leen am benn itte wala benn bëgg-bëgg bu sàkku xam-xam Cheikh Ibra Fall ne ah ñuy ndaw ñi baadu suñu doom yi suñu jarbaat yi ñu ne teg mu ne déedéet sëñ Bamba bu fi nekkee ñëpp ndaw lañ moom rek mooy mag daa di ne barab bu ne la barab bu ne la fa yàlla fekk digal ñëpp ñu xam ko mm. ku ko xam boo jëngul benn xarafit kenn rawatu la ci réew ma nga ne waaye barab bu ne la fa yàlla teg digal ñëpp ñu xam ko ku ko umpule boo jàngoon ba jeexal téere yi yaa gën a réer ci réew ma nga ne fii sëñ Bamba la fa yàlla teg xam naa ko duur maa xam ne ne daal di dikk sëriñ bi ànd ngeen def ak Ibra Fall ñu nekk la ko nii mu def mu ne waaw Ibra Fall xam ne mboolem bii ñi ma ci doon romb ma fii boo jógee ci buntu dee ngay jaar waaye moom su ma kon romb ma fii Ibra Fall bu jógee fa sama baaraam doxee dong lay tay boppam ak fa la ne woon bu loolu lañ doon waxtaane suñu borom boo mat sëñ Omar euh, kii ma àndal di ko wax sëñ Saliou koy sëñ Ngounda kooku sëñ Mbodou Fall tudde mooy moo bokk wenn wenn di sëñ Saliou ñang daa wax sëñ ni ko diw ci suñu bokk gañ gañ daan tudd sax dafa mas ñëw fi sama seero sa ne ko diw mu ne ko labay ga mhm. mu ne ko seen njàpp mu kawe mi lu ngeen jublu seen njàpp mu kawe mi mhm. ne mu seera mooy mooy Fall noo xam ne bu saa taxawee fa sam njàpp yam mhm. des koy def muy ab jébbu ne seer na ko saay te ngeen dem siñ bam mi sopp am ndimbu saay te ngeen dem siñ bam mi sopp am ndimbu waaw loolu la ma ko doon <laughs> alamin barke borom toog Cheikh Ibra barke Cheikh Moussa Massamba waaw sëriñ bi de noo ngi lay nuyu bu baax Fall te di la siyaare tey bëgg a seere rek lu ñu fekke ba tey dama dey doomu sëriñ bii ñu weex seen Cheikhu naa ne ko jotaay bii de miin naa ko ci moom bu fi sëriñ bi nekkee kon nag bu ko matalee bu fi sëriñ bi nekkul moom doxinu wàcc ko benn yoon dalal na sunu xelit ndax ñun ñii nga xam ne noonu ci wetam dina ci kër gi waxtu wu ne day waxtu wu ne lu xew lu ne ci tubaa laay wax du lii rek fekk gis na la ci wetam loolu nag dalal na suñu xel dool na suñu yaakaar wetti la nunu it loolu da njaboot gépp ma ko dee ci ginnaaw faal waaw voilà waaw kay jërëjëf kon nag waaw jërëjëf. ci ci alhamdulilah tubaarakaal jërëjëf Fall jërëjëf Fall waaw ñëw nañu waaw loolu rek lañ ci bëggoon jottali ci ci kanam mbooloo mi nangu leen ñaan ترى يقود لي إلى الجنان من لينور الجنان بسر وسرا بالجنان بلا أزل أو همم بارك للحق المبين لما لخلقه يبين وفي الذي ليس يبين sama xidmatu xayril aalamiin safar la xayri man yamiin wa bil amiin wal amiin بالدر النسيب وقاد لي سر عزيز وكان لي بلوحيتي اللهم للكرم كرامتي قد يدي في خدمة المؤيد وكان لي بلوحيتي اللهم للكرم كرامتي قد يدي في خدمة المؤيد وكان لي بلفيتي اللهم للكرم له نجم رتيب غالج غدر له الطرائب زال لبد جنات مرآة أزواجها بانهن نهم إسنان عبدانها يسري السراجات ما مشأن لدنس الأرث أنساه شيء من الوصم في وصف ولا سات وليس يبقين بالأزواج من بدل وبعدة النور تنمو كل صات ولا يزلن أزارا عندهم أبدا أكرم بهن خريدات سفيات ولا يزرن إلى موت ولا أرم بل لا يزلن مقيمات مهبات وإن الخوان لواد القلب تاب بها يختارهن لسلمى وإمداد ومارؤن تقاء الله فاترها بتوبة من هوى نفس لتهاد بتوبة وبإسلام إلى ملك قد جاد بالمصطفى كنس البريات بتوبة وبإسلام إلى ملك قد جاد بالمصطفى كنس البريات العبد نفسي لرب لا شريك له ما لسي خفوس لي وجاتي العبد نفسي لا سبيح له maa la di ubbo asamaraamaati ajlamtu nafsi li rabbin la nasiira lahu maa la di naju xayrul mahajjaati ajlamtu nafsi li rabbin la muhiina lahu ما الذي دينه خير الديانات أيلمت نفسي لرب لا ابتداء له ما لسي خدوى خير التاريخات أسلمت نفسي لرب لا انتهاء له ما لسي خربه كبرى مهمات علمت نفسي لرب جل عن ولد ما الذي مدعو ثري وعداتي علمت نفسي لرب جل عن خرد ما لسي جسله أرجى سقيراتي أسلمت نفسي لرب جل عن مشد ما لسي قد نجا من كل آفات الحمد لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن يادي زل عليه الذي على مراتبه فوق المراتب في المال وفي ولا لوازب والمستمسكين به أسكى صلاة به تنفر النات سلا ليلتي أنا مهتليا فوق الذين تبوا على المقامات ولا لواس والغافين سنته أسكى شلات بها أو الفتوات صلى على الذي على نبوته أتى استجارت به أهل النبوات صلى على الذي على نبوته أتستجار به أهل النبوات أسلمت نفسي لرب لا انتهاء له ما الذي قربه كبرى مهمات أسلمت نفسي لرب جل أن ولدي ما لسيمته سري وذاتي أسلمت نفسي لرب جل عن خرد ما لسي جسله أرجى سقيراتي أسلمت نفسي لرب جل عن مثل ما الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي زلا عليه الذي على مراتب فوق المراتب في الماضي وفي الماتب ولا للعذاب والمستمسكين به أتى صلاة بها تنفير أوناتي سلان التي يعنى مغتليا وعلى النطر على المقامات والآن والشعب والخافين سنته أسكى شرات بها أم فتهات شرع عليه الذي يعلى نبوته متى استجارت به أهل النبوات ولا لواذب والمجدرسدين به أزكى شراك بها أو السهادات زلا علي إلى سياطة أمودسة أخذت سبيسير تنرا والكهانات ولا للعذاب والمستنجدين به أزكى ثلاث بها أو الكرامات زل عليه لسي أبدى تخدمه أنا ملا لغل ترا والسماوات ولا لواعجب والمجدنغسين به أزكى صلاة بها أو الفيولاد جل عليه زرادا نستقيم بها من غزه بتدلي في الملاخات والآل والصحب والمهين سنته ما سلا من بلا إنهاء غاياتي ساك المدير التي قد استجرت به من در نفسي وسيتان وآتي ومن مكائد أدائي ومن ثمني ومن كلام وعين كل أوخات ومن تغير أهوالي لخير أدن ومن جميع رسايا والخطيات محمد سره قلبي ومبراتي مبكي خليف جنرال دي مريد Mbàkke di ko ñaan mu yàgg fi loolu di wér noonu yi dañ koy ñaanale eh, sëñ Moustapha sàmba di ko ñaanal eh, njabootu sëñ Massamba gépp eh, tey moom ku ñu gis fii xam ne ñu ngi ci màggalu sëñ Massamba gi nekk ci kër soxna Bintu Massamba jal na yàlla yokk leeram taasu ci barkeem taal bi yëpp ngi nii ñu toog fii ak xalifaam muy sëñ Mbàcc Mbàkke di xalifa euh, soxna Bintu Masamba euh, toog fi ak euh, Chérif Abdourahmane Fall Tilala nga xam ne ci kër gi la bokk ak ñun ñi ñëpp di taalibe tey jii di célébrer bis bu màgg bi di bisu sëñ Masamba soxna Bintu nag jàmbaar ja wàcc na waaye ma ci suñu kanam ndax dara jógu fi tey ci ku gis ni ñu toogee rek euh, xel dalaat na ci liggéeyam bi nga xam ne moom da loon liggéey kon nag dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne mooy ab taawam di xalifaam sëñ Bàcc Mbàkke mu wax ak taalibe yi bisimilah laahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin nabiyina muhammadin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar di jiital ci ziar bi Cheikh Sidil Maxtaar mi nga xam ni moo fi nekkal Cheikhul Xadim di ñaan suñu borom may ko gudd fan ak wér li mu bëgg a liggéeyal Cheikhul Xadim mu liggéey ko di ci teg Cheikh Moustapha moom Cheikh ma sàmba nga xam moo fi nekk xalifa sëriñ Massamba ak waa kër Cheikh Massamba yépp bis bi di bis bu ñuy defal ma Massamba di ko fàttaliku di ko ci ñaanal muy lu am solo ndax nit ki su fi nekkee ci àdduna ba génn àdduna dañuy wax ni jëfam yu baax yëpp dagg dog na lu mu doon maanaam ay jëfam dog na ndax bar sax kenn mënatu faa jëf dara liñ doon jëf fii ci àdduna lañ koy jëfe ba mu des lu baax loo fi bàyyi woon jullit yi di ci jariñu ak njaboot gu baax ñoo fi bàyyi ñu di la fàttaliku loolu la nit ki dese bu boobaa njaboot gu baax googu fi Cheikh Massamba bàyyi njaboot gu baax googu fi Cheikh Massamba bàyyi ñooy fàttaliku tey Cheikh Massamba Cheikh Massamba ak dundam yépp mu jox ko Cheikhul Khadim ci jox sa dund Cheikhul Khadim mooy jox ko seydinaa Muhammad sallallahu alayhi mooy jox ko suñu borom tabaraka wa taala Cheikh Massamba dañuy wax ni fu ñuy waxtaane nit yàlla yi yërmande yi suñu borom day wàcc kon fu ñu koy fàttaliku di ko waxtaane loolu day lu am solo ndax ginnaaw bu ñuy waxtaan ci ñoom yërmande yi suñu borom day wàcc kon waxtaane leen lu war la Cheikh sàmb ak dundam yépp mu jox ko Serigne Touba ci liggéeyal ko ba ni mu fi jógee loola tamit am na firnde ndax lu baax ku ko doon def boo fi jógee lu baax loolu day continuer moo waral bis bi soxna si fi jógee di soxna Bintu moom ma Massamba nekk daa taxawe bis bi ba yàlla def nekkatu fi ñi mu fi bàyyi di ay njabootam tamit fas yéene di wéyal loolu ak bokk yi fi teew muy ñi fi teew du Chérif Abdourahmane ak ñoom sëñ Samba jaw ñoom ñi bokk ci kër gi nga xam ni lu soxna si mas nekk tamit dañ cee taxaw jàpp ci ba tey jii wone na ko kon loolu moo waral jataay bi tey ak bokki taalibe yi fi nekk dëkkoon ak soxna si koñ bi di ñu baax ñoo xam ne ñu am wëllëre lañ ndax waxtu fi soxna si masaa nekk dañ fiy nekk ak soxna si ak seeni njaboot loolu nag mooy wëllëre ndax wëllëre bokk na ci li suñu borom di jëkk laaj bis penc kon wëllëre woowu ñoom matal nañ ko bis bi nag duñ ci mën a waxtaan lu gudd ndax temps bi moo tax waaye ñi ngi ñi ngi ñi ngi seere maanaam ci bokk ci yoonu murit ñëpp taxawaayu waa seex ma Massamba ci keroog bi fi soxna si jóge taxawaay nañ taxawaay bu rafet ndax am na kilifa goo xam ne daan na daan bu ñu masaani àll de si ko nawee mat dina ne ah kay àll ba amul mat moo tax kon ñi ngi leen ñi maa ngi leen di gërëm ñoom ci niñ taxawoo soxna Bintu moom Cheikh Massamba ak taalibe yi nga xam ni ñoo ko seq ak ñoom di seeni taalibe ak bokk yi fi teew di ay ñoo xam ne dañuy denc doomi soxna si ñoom itam ci seen taxawaay rafet na ñu ngi leen di sant di ñaan suñu boroom mi am ndimbal mu boole ñu dimbali dafa ñu tawfeex di ñaan suñu boroom Cheikh ma fa mu nekk ci barsax ak waa kër maam Balla ku bokk ci kër maam Maaram suñu borom dajal la ak tawfeexam soxna Bintu moom Cheikh Massamba fa mu nekk suñu borom jéggal ko ak ñam fa nekkal jéggal mboolem jullit yi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi barakati Cheikhuna Ahmadul Xadim ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm cant goo xam ni ñu ngi ko bokk ak njabootu soxna si yëpp wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. بالمنتقى فتنا كل خمات بغداد نافلة من فاقر وداد مثل انسقاق السن مع لتلخده ولا مخاطبه يوما بكلمات وجئت قد أن